bali nañ di attaquer régime bi. Mm-hmm. si ñu daanaka deux mois lañ toog. Zeyna ba yaa ngi dox si 72 heures yi. 72 mm-hmm. heures yi gars yi def si Facebook bi <laughs> si nga bokk. déedéet nag bokk ma ci 72 heures bi nag dama koy bàyyi xale yi nga xamante ñoom ñoo ma a xarañ. Eh, mais xarañ nga nag. <laughs> dama koy xale yi nga xam ne ñoom ñoo ma. xarañ nga dañuy gis sa publication. gën a gën a xarañ. Uh-huh. waa xam nga euh, ñun bokkuñu vision. Mm-hmm. bokkuñu façon de voir les choses. Mm-hmm. noonu démb yi suñu nangoo tey rek dafa am lu ko waral am na ñoo xam ne duñu ñu nangu ndax bokkuñu lu tax bokkuñu mooy euh, mbay. Mm-hmm. ñun dafa am lu ñu yëkkati dañoo xam fu ñu jëm. dañoo sacrifier lu bari gis nga effort yu ñu def ba yegg si fii. effort yooyu détermination la gëm-gëm gëm projet bi gëm suñu. leader yi xeex jaar fu metti Sénégal yépp xam ko lum ñu jaraloon ba ñu teg ñii ci pouvoir bi loolu jaral nañu lu ko raw pour Sénégal baax ndaxte ñun Sénégal baax rek moo ñu yëkkati woon. Mhm. du intérêt crypto personnel. déedéet ñun dugguñu ci politique patriote yépp laay waxal nag je parle au nom de tous les patriotes ñun dugguñu ci politique ngir am tour mhm. dugguñu ci politique pour ñu xam ñu ñun Sénégal baax. moo ñu yi nga détracteur yooyu. Mm-hmm. nañu may ñu liggéey dañoo toll ci liggéey. Mm-hmm. ñu dañoo bëgg Sénégal ñoom dañoo bëgg seen poche. bokkuñu ñoom seen intérêt crypto personnel moom moo tax ñuy jooy de yuuxu bi li nga ci dégg mu bëri yëpp ak coow lu lu muy bëri yëpp ñoom seen intérêt moo tax ñuy wax. ah waaw ñun intérêt Sénégal moo ñu tax a jóg. Mm-hmm. te ñun nag euh, gis nga ndawu Pastef yi ñun ñooy bouclier projet bi. gis nga ñun euh, nu mu Ousmane ko doon waxee anticorps. le président Ousmane Sonko. ni ñu doon woowee anticorps. Mhm. ñun ñun ñooy bouclier projet PASTEF ñun ñooy bouclier gouvernement bi ñun ñooy bouclier Sénégal ndaxte ñun nag dañoo bëgg Sénégal baax te pour Sénégal baax ñun dañ ñuy may ñu liggéey deux mois rek lañ fi defagum defaguñ fi waxaguñ fi te xoolal liñ fi teg yépp ci ñaari weer gis nga ku la dig ndékki ku la jox ndékki su la diggee añ war nga koo gëm. ci foofu la ñu toll nañu may rek ñu liggéey. te ñu mhm. bàyyi seen intérêt personnel yi tuuti jiital Sénégal. te xam ne ñoom Sénégal rek moo ñu tax a jóg te dañuy defar incha allah wax wax mënul ci ñun dara def mënul ci ñun dara ndax su fekkoon wax ak jëf rek moo mun ci ñun dara kon instant bi duñu yegg fii ñu yegg. Mhm. mais détermination bu ñu am ngëm-ngëm bu ñu am kon ñoom war nañoo xam ne seen wax yi mënul ci ñun dara dañuy dem de incha allah bi samawaat wa ma fil ardi te dara duñu tee yegg. Mhm. ndax yéene bi nga xam ne moom lañ suñu leader yi am yéene bi nga xam ne moom mooy moom la la le président Bachir Diomaye Faye am ci Sénégal yéene bi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko am ko ba mu jaral leen ñuy xëy di liggéeyi pourtant su fekkoon ne Sénégal ñorul leen woon mënoon na ñoo def comme ñëpp toog encaissé seeni milliards lekk ko ak seen njaboot li ñuy def nii dafa metti bàyyi sa njaboot ginnaaw di génn di liggéeyi. taloo dara. dëkkatoo sax sa kër. dëkkatoo sa kër yow chaque jour yaa ngi bureau yaa ngi xool lan mooy doxal askan wi lan mooy doxal réew mi nga di ci dox di ci wax. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jóg pour détracter ñun lijjanti wuñu leen de ñun dañuy dem. te mhm. incha allah dinañ yegg fu ñu jëm. Mhm. ñoom nañu may rek. ñu liggéey. mbirum mbirum paa yi nga xamante ne teg nañ ko tamit gis nañ li nga xam ne jëm na si mbirum impôt yi te yéen tamit nekk si diaspora bi yàgg ngeen ko naqarlu daan nañ gis sax des fois nga gis euh, kenn ku nekk si diaspora day jël benn photo nit ku yor entreprise Sénégal te du fay impo sax mu publier ko diw na fay impôt tey bu ñu demee tey mbirum euh, mbirum fiscalité yi nga xam ne jamono yi coow li jóg na lool si mbirum mhm. Madiambal Diagne jëm si Bougane Gueye Dany mhm. Maïmouna euh, Ndour Faye bu 7TV mhm. ak ñeneen ñoo xamante ne sax daanaka dégg nañ ma jambal ñu ne ñoom ñoo si gën a fës waaye ñu bëri gars yi dinañ dal seen kaw jëm si mbirum fiscalité ban jàngat nga si am jàngat bu ma ci am mooy dama koy rafetlu xam nga lu tax ma koy rafetlu mooy dëgg neexul dëgg neexul parce que gis nañ fi temps yële passé que ne ñun amatuñu woon opposition mais yenn ci journalistes yi ñoom ñoo doon opposé woo. Mhm. lu ñu doon opposé woo nag seulement que ñoom ñun dañ leen a raw parce que xëy na génération yi fi ñu nekkoon comprendre ñu par rapport ak ñun information yi ñu am wala boog li nga xam ne moom la ñu xam. parce que ñun dañuy informer ak réseaux sociaux yi aussi daf ñoo dimbale ci ñu xam lu bëri ñoo ngi doon yuuxu. di wax lu leen neex di attaquer gouvernement bi nga xamante ne waxaguñu sax asalaamaaleykum lu jubluwaay bi moo doon am euh, benn benn benn alibi mooy suñ leen waxlee fay leen impôt ñu ne voilà politique moo ko lal parce que dañoo dañu dañu doon attaquer gouvernement bi loolu moom moo tax bëgg ñoo dëkkuloo fu ñu dëkkul. Mm-hmm. waaye ñun nag dañ leen naa gën a yeewu dañ leen gën a yeewoo mooy ñun xamoon nañ xamoon nañu lu ñu nar. moo tax euh, tey li ñu doon def yëpp yaakaar naa ne safewul mhm. ku war a fay na fay parce que impôt état bi moo ko moom état bi moom mooy kan mooy yow mooy man mooy population sénégalaise mhm. justice ku ma am ndey ku ma amul ndey daf fi amoon mais tamit impôt ñii di fay ñii di am ñii di bañ a fay loolu jeex na ci réew mi jub jubal jubanti la ñu wax ci nag bay ci say weewu tànk sooy commencé da ngay moo ne la moo bon exemple bon exemple mooy loon nga yor entreprise di gagné ay milliards milliards sa wareef mooy nga fay impôt. Mm. comme tout le monde. xëy na ñoom dañuy ne euh, président bu fi nekkoon daf leen a waxoon baal na leen li nga moom ngay baale moom moomul impôt yi ba koy baale. Mm-hmm. population ne askanu Sénégal moom moomum impôt bi. Mm-hmm. donc askanu Sénégal baalewul parce que amuñu lu ñu baale dañoo nekk ci tànk liggéey donc dama koy rafetlu bu baax ñoom nag nañu wax lu leen neex nañu yuuxu. parce que nag euh, kuy woddoo làmmiñ moom soo noppee rek rafle mhm. ku nekkul ci dëgg tamit day yomb trop ngay tëb di dal waaye ñun loolu ébralé wuñu loolu yëngaluñu mhm. dañoo xuus de ñun fu ñu jógee dafa metti mbay dañoo gis lu nekk daj lu ne ñu noppi woon ci nag ñëpp seetaan taxawee taxawaayu Suisse ñu tumuranke lool ci réew mi mhm. tumuranke lool demoon ba ñuy laaj ndax ñun am nañu vraiment ay kilifa am nañu ñu ñu waxal ñu teg ci seen bët noppi ñi xam ne noonu lañu màndoo woon ci bu ñuy rey di ñu dóor di ñu toroxal di ñu dawloo suñu réew di ñu gàddaayloo nañu màndoo noonu rek te jéem a fexe fay mm-hmm. man loolu rek laa leen di wax mm-hmm.